bonjour, à euh, amis téléspectateurs de la VFTV comme d'habitude on est lundi euh, début de semaine ñu war leen les titres des journaux euh, tey jii nii euh, ci comme d'habitude dans les locaux de la VFTV di leen wax nag ne leen maa leen di souhaiter une excellente semaine ku ci nekk fa nga rek jàppal ni sa axine agsi na ci yow ci jàmm ay ci sans plus tarder damay daal di ñëw rek ñu di dem jéem a xool li nga xamante ne suñu yi indil tay euh, su ko defee man dama koy daal di tàmbali ak euh, tribune euh, tribune ñu ngi ñëw ci 21 milliards pour embellir la corniche 1 milliard 300 bloque la finition de l'hôpital de Diakhaï depuis 11 ans voilà nous ngi 23 milliards pour ñu embellir la corniche ban corniche corniche Dakar te corniche Dakar bu ngeen ko ay at ci aussi euh, defaroon nañ ko ba mu ne booy wutal ko ay garab ay cocotier wutal ko ay ay ay ay ay décoration yu rafet a rafet a rafet rafet vraiment donc buñ ñu né ne dañuy war a embelliraat Dakar donc ce qui veut dire que kon la fa jotta a dafa daldi euh, bari lol lol lol waye man nak duma gis euh, ay 300.

taxawal société boo xamante ne du nax saay jeunesse bi dañu war a nekk en en bonne santé mag ñi aussi dañu war a nekk en bonne santé pour mën di leen accompagner donc ci biir loolu man je pense que euh, de 21 milliards gaspillage la alors que ñu ngi soxla rek benn 1 milliard 300 euh, pour euh, yeggale benn hôpital boo xam ne 11 ans mi ngi tëdd di nelaw nañ xoolaat waaye affaire yi ñu koy def ci priorité waaye. ba tey ci tribune ñu ngi wax ne le film de l'arrestation de Sira Dramé dans son appartement. Siré Darame mooy ki nga xam ne moom moo kidnappé woon bébé Aïcha bu ngeen xoolee sax ci photo yi da ngeen di gis ne man ki ne moomu bu fekkente ne ni wér na aussi dina des parce que da ngay xool ni muy xoolee da ngay xam ne kii peut-être li mu def nii est-ce que moom moo ko tey moom nee na dafa gis xale bi nee na dafa bëgg xale bi xale bi dafa rafet ñun ñi toog fii macha allah laf cat yàlla na gudd fan eh, toog ba eh, teral ndeyam ak baayam eh, yàlla lafal ko cat mais ñun ñii di wax yow sa xale bi elle est elle adorable macha allah elle est joviale donc loolu ñun ñi sama nañu dal mais kantaan nag doomu jàmbur ak ni doom mel ci xol nga jël ko rek yi dem teg ko ci sa appartement jënd say couche jënd say yére xëy rek di ko xool ndeyam moom de l'autre côté mi ngi dee loolu tamit benn instant tamit nag tooñ la man dama jàpp ne dafa àndul ak xelam à 100 mais comme xale bi feeñ na ci jàmm ak salam rek sante yàlla ay ci ñu daal di dem xool. ñu ne Déthié Fall Ahmed Aïdara et mam diara euh, devant la barre Sans rek maa ngi jot euh, information bi sama benn naataango mi ngi may wax ne ma la salle est pleine et que ñëpp ñi nga xamante ne nii ay ay mbokk wala ay xaritu Déthié Fall ak Ahmed Aïdara ak mam diara ñoom ñëpp euh, ñi ngi actuellement toog foofu pour soutenir seen mbokk yooyu même yàggul dara je pense que démb la woon doomu Ahmed Aïdara bu jigéen génn na moom tamit di jooy vraiment pour di wax ne nañ génne papaam euh, waa site boobu tamit nga xamante ne nii mooy 2A euh, euh, bu ay dara 2A TV ñoom aussi ñi ngi ñaxtu ñi ngi def ay ay affiche ni wax euh, Free Ahmed Aidara ñi ngi def ay débat Pa Assane Pa Assane moom yendalatul fananalatul noppaleekutul euh, lépp rek pour bëgg ñu daal di génne euh, maire boobu nga xamante ni nii mooy maire Guédiawaye di Ahmed Aidara nekkoon ci télévision bu mag boobu nga xamante ni nii mooy Sen TV yàggu dara la fa daal di jóge daal di berdaaraam ñu xooli le quotidien la la indi tey mu ne sommet du G7 à Munich l'Afrique en je à El bon El Mao là, hein, noonu gis ñu ko hein, El Mao là. l'agenda euh, sur bouquet de Macky Euh, Macky Sall nag fan yi moom am na benn agenda bu nga xamante ne nii euh, c'est rempli euh, lépp rek ngir bëgg dox dem seeti ay naataangoom jéem a xool nu ñuy nuyee ay partenariat def ay collaboration pour rek njëriñu Sénégal ba tey ma daal di dem xool ne maa ngi gis ne presque journaux yëpp dañu génne xalifu Tiwaawan bi mu toog ci wetu Macky Sall Euh, xam naa bu ma tout tuuti euh, dinañ euh, le pourquoi nous ñëpp ñu def ko tête tête de qui tête d'affiche voilà ñu sommes la machine judiciaire mise en branle fi ñu ngi l'ancien président de la Gambie di Yaya nous ñu né procédure judiciaire sur le pillage de la forêt de Casamance Nous sommes ñing ko ci woné ni di ci xam naa ne nag du ñàkk dafa am euh, lien bu nga xamante ne moom ci lu mu ci rôle bu mu ci joué wala muy avant mu fiy jógee ba ni fi jógee euh, beneen euh, mbokkam remplacé ko muy Baro Adama Baro remplacé léegi buñ ku ci bëgg gën xam lu la rek nga dem l'info parce que dañuy traiter rek les titres pour vous mettre dans le bain ci biir noonu ñu euh, journal euh, l'indépendance l'indépendant autant pour moi euh, mu les enquêteurs sur une piste de 71 milliards de francs CFA foofu nag ñi ngi wax ne ngi concerné les dérives du régime apériste Après Malenchon, le premier secrétaire du Parti socialiste français, Olivier fort alerte. Euh, ci biir noonu ba tey ñu ne Serigne euh, Mbaye Mansour appelle la classe politique euh, au dialogue waaw dialogue de jot te sax maa ngi am quelque part sur la toile fu ma gisee que ni hier président de la République donne recevoir la majorité des de l'opposition xam naa dialogue boobu kiko kiko ki ko maanaam ki ko taxawal ba tax mu mën a am nga xam ne moo ne ci ginnaaw yaakaar naa ne euh, euh, le xalif de euh, tiwawan ñu ne ba tey législative la Ligue des imams et prédicateurs prône le report ah, comme ñoom ñi ngi le report te aussi opposition bi ñi ngi le report boy xool bu fekkee majorité bi yépp nag dañoo d'accord pour ñu reporter les élections yaakaar naa ne nag euh, jaadu na ñu daal di koy reporter gën a saytuwaat mbir yi gën ko tegaat ci yoon ba nga xamante ne ni ñëpp dinañ euh, pare sur tous les plans ñu soogaa dem ci euh, li nga xamante ne ni moom mooy élection yi voilà donc ci loolu ñu daal dem xool yi beneen ñu ne enquête enquête ba tey mi ngi indiwaat même chose bi mu ne célébration centenaire maudo un euh, monte au créneau. Ñu ne à l'opposition il y a des frontières à ne pas franchir C'est euh, Babacar Sy Mansour appelle au calme et à la discussion donc euh, donc c'était à l'occasion de euh, de de la célébration centenaire Maudo. donc ci la euh, le xalif de Tidiane daal di waxee ak président de la République daal di koy euh, bëgg indi sur la raison Khamal ko ne dialogue foog mu am xamal ko ne ko aussi foog vraiment diplomatie am waaye tamit foog njéggal am ak compréhension mi ngi espérons que nak mom lolu mu wax dina jour jam dina dina président dina ci baye xel bu baax a baax nous dem xooli critique lundi de tension au tribunal waaw tu dina am tension parce que tu es nii dañoo war a àtte euh, kooku nga xamante ne nii Ahmed Aydara, Mame femme Fam ak Déthié Fall ne euh, la rébellion prend forme à l'Assemblée nationale euh, Benno Bokk car alerte la perspective de l'exploitation du gaz aiguise les appétits mortifères ba tey ñu daan ne Pape Mahawadjouf rabal

le CDC euh, cotise 264 euh, logements euh, programme des des 1000 logements voilà ñoom aussi ñu ngi ci loolu mais booy xool ñoom euh, côté bi ñuy gën a tabaxee ci zone des ñaay bi jàpp euh, zone u Bambilor bi dangay gis ne fan yi da ngay gis logement yu bare bare ña nga fa euh, di xaar ñu daal di koy séddale am na ci ñoo xamante ne ni seen xaay dugg na ba pare am ci ñu nga xamante ne nii xëy na dañuy def location vente am ci ñoo xam ne xëy na peut ñoom dañuy ñëw rek gis mu pare mu neex leen ñu daal di jënd mais daal li ma ci leer ba leer moom mooy logement moom macha allah foofu moom du fa jeex ay ci ñu daal dem xooli le pop Le pauvre Nini indi le 29 juin, euh, l'État euh, ne tient, ne, l'État ne déchirera pas, il restera fort. day leen ma jéggal ami téléspectateur parce que comme le may tàmm di wax rek euh, j'ai des problèmes de vision te actuellement nii euh, maa ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax mais bu fekkente dis que ma jege de trop rek gis gis bi day daal di te buma téké lunette yi rek musiba am ndax tamit sama vue de loin day daal di euh, yàqoo ay ci ci loolu ñu ne la ravisseuse de bébé Aïda passe aux aveux et dévoile euh, ses mobiles euh, Tivaouane indique la voie de la paix et avertit donc nous naa ci léegi jarul ma ci ñëwaat ñu ne fii il y en a qui veulent gâcher le pays je n'ai pas peur de le dire loolu ba tey kàddu yooyu ma nga ci ci le calife des Tidianes ba tey buñ ñu demee ci le soleil moom tamit même chose bi le traité euh, muy euh, Maodo malik un grand par son un grand par son legs muy conseil yooyu nga xam ne jox na ko président de la république euh, ci cérémonie célébration centenaire Maodo bi donc ñoom ñëpp ñu xëyee loolu lañ daal di relaté ñu ne sax profito nañ daal def pose première pierre. Euh, fële ca Tiwaawan moo tax ñu ne Tiwaawan déroule le tapis rouge à Macky et regarde et recadre autant pour moi euh, l'opposition Horizon sans frontières interpelle le gouvernement espagnol dafa am lu yéeme lu doy waar lu nga xamante ne ni dafa xew fan yi euh, dafa am ay doomu Afrique yu demoon ne dañuy dem Espagne waaye ni ñu mujjee ñenn ñi ci yoon wi lañ dee ñenn ñi wadd ci yoon wi ñenn ñi ba ñu yeggee dañ leen doon noot di leen dóor rey ci rey nañ ci sax ñu baree baree baree bari man bi ma gisee photo yi sax dama yéemu ay lan moo ko fi jar xale yi liñ xewal léegi toog muy dox bii dañ ci góorgóorlu waay tey jii kiy jaay ndox bu ci góor góorgóorloo dina dem ba am ci lim ci bëgg am keneen na keneen keneen na keneen y a pas de mais loo xamante ne yow sa bakkan ngay jël di ko risqué nga toog fii sax di lekk ci ceeb bi di naan ci ndox mi ba pare di gis say waajur di foraatu par fukki jërëm juróom loo am mbokk ak say mbokk moo gën nga jël tey la sa bakkan bii ci géej gi dem nga yegg ñañ lay fekk bëgguñu nga ñëw seen dëkk bëgguñu nga ñëw seen dëkk boo ñëwee ñu rey la bala ngaa naan nii ñu rey la buñ la rayu tamit di nga sonn wala dinañ la chifaaye chifaay ba ngay bëgg dee lan moo ko fi jar et puis liste bi liste bi dafa bari liste dafa bari ay africains yoo xamante ne ni Sénégal am na ci lu baree baree baree baree baree baree Nigérian yaa ngi ci Mauritanien race yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dëkk yëpp ñu ngi ci presque ñoo xamante ne ni ci Afrique yi lañ jógee lim bi ci gën a daw je pense 10 la dee ñëpp dee nañ ñëpp dee nañ Sénégal moo am na ci 40 et poussière yu yu yuy waajalaal cinquante loolu tamit dañ xoolaat affaire yu waa et puis euh, diggante ñaari dëkk yi euh, diggante Maroc Espagne ak Sénégal. waxuma sax yeneen dëkk mais ñun dañuy concerné war nañu revoiraat seen euh, euh, seen seen seen convention yi ñuy signé wala seen partenariat yi wala seen accord yi ñuy signé war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax ba nga xamante ne nii suñu couverture ñun sénégalais yi dinañu mën a sàmm dinañu mën a sàmm ba nga xamante ne nii suñu doom yi bu ñu dematee avant ñuy sori sax ñu mën leen a wàññi wala bu ñu demee ba sori ba yegg ci jàmm ñu tegaat leen ndànk ci avion ñu delsi wala ñu woo gouvernement sénégalais mu dem jëli leen indiwaat leen ci seen gox comme ñoom soxlawul ñu mais tamit lépp rek gis nga nit daagu fañ la bëggee bu buñ la bëggul benn dëkk jaru nga fay dem toogal fii nga toog nga dénk yàlla sa bopp nga ñafe loolu mooy dëgg waaw ni ngi noonu ay ma daal di jàll dem xooli euh, euh, alerte alerte ba tey euh, jaruñu ci ñëwaat suñu naataango yi wax nañ ko ba pare traité nañ ko muy euh, président de la république ba mu demee Tiwaawan euh, ñi ngi wax aussi ñu ne élection législative au Sénégal le silence troublant de Karim Wade am na sax ñu may dégg ci Facebook bi ñuy wax naan Karim dafay waaj a ñibbi si Sénégal man na ba ma koy dégg ba léegi dafa yàgg te gisaguma Karim bala ma koo gëm na ma kaa gis xanaa peut-être rek di leen wax rek ne leen nañ ci nañ nañ nañ gën a muñ daal. nañ gën a muñ ñu xool ba xam euh, fan la ñuy euh, mujjee 24 euh, heures chrono mi ngi ñëw ci arrestation de Mame Diarra Fam Déthié Fall et compagnie Olivier Faure froisse l'État du Sénégal waaw ñoom foofu lañ ci yam projet d'aménagement de la corniche ouest de Dakar quand l'est du Sénégal enfreint la loi voilà ñoom loolu la ñuy wax ni wax naa leen ko sànq nee naa leen euh, milliards yi jaruñu di ko yàqate ci yoo xamante ne nii rek pour décoration la nañ ko def ci askan wi nit ñi faju lekk ba suur naan ba maan déwlin gi cher na ceeb bi cher na lépp a cher ñiy ayee sax duñ xam nu ñuy def borom kër yi ñoom dee nañ ba noppi jigéen ñi yokk dépense moom xamatuñ sax fu ñuy jaar ñëpp a dof fi ñu toon ñëpp gëlëm la vie est chère bàyyi leen ci xel dafa am yoo xamante ne nii nécessité la muy lekk ak naan moom la ñu war a njëkk a jiital sóoraale ne nit ñi les temps sont tellement durs nit ñi amuñu sax vraiment dépense bu mat waxtuma la bu fekkente ne yok yokk bi yok ceeb bi yok lepp ay way euh, bisabilillah yef yi na delluwaat wat fam newon way ah sonu nañ ay ci ñu dem xol réew mi quotidien réew mi quotidien mom mi nga xone maître Abdoulaye tin euh, sur euh, les législatives mom nak ay cadre yëm yëkëti moy les manifestations empêchent la tenue des élections élections yi ba mala bala maa gëm ne du am yéen wax leen rek ñun ñuy dox ayca ba tey ñu ñëw ci l'Obs euh, l'Obs euh, mi ngi wax ne fraude et évasion fiscale le Sénégal en état de guerre euh, le gouvernement corse les mécanismes de lutte les 161 milliards de francs CFA qui échappent à la comptabilité publique et l'adoption de la loi numéro 2021 43 ba tey ñoom it ngi wax né membre euh, de la force spéciale liti l'itinéraire euh, tumultueux de Pape Ousmane Seck arrêté pour terrorisme ki Pape Ousmane Seck mom ku dégg Ousmane dégg Seck xamné ab sénégalais la man terrorisme ba ma koy dégg ba légui dama fogoné ci ñun ñu xonku ñu lé manam ci naari waye waaye bu ma demee ba légui Sénégal doo 3 mois té dégg na tel sénégalais dañ ko arrêté pour terrorisme ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen kon manam ñun dañoo commencé génn xeet daa mel ni

dawal ngi lay donc suñu kilifa yu yi dañ leen dañ ñaanal suñu borom leen fi direct news direct news euh, euh, euh, c'est par rapport à Sonko les législatives et le troisième mandat du président Macky Sall Euh, le président Macky Sall a dégagé 500 milliards de francs CFA qu'il a injectés dans l'économie pour euh, soulager les familles, 120 euh, milliards euh, pour améliorer la, les conditions de vie des enseignants et l'armée et 150 milliards de francs CFA pour bloquer les prix d'électricité. xaw lu mu ci mën doon mais waa Jurbel moom ñu ngi dee fii ci fii ñu nekk nii ci fii nii ci suñu gox bii Jurbel ñu ngi dee coupure courant chaque minute yak suñu matériel yi kenn du nelaw bëccëg ak tangor bi fi yalla def ñoor ñoo dimbale amuñu climatiseur ñenn ñi ay ventilateur lañ yor yàlla nañu dimbale ngir jëmmi Serigne Touba waa Sénélec bàyyi leen courant bi bi mu ñëw tailleur yi di liggéey courant bi bu coupé duñu encaissé duñu mën a jënd xarum tabaski ñi war a sañse xale yi du duñu sañse dimbale leen ñu ci courant bi ngir jëm Serigne Touba lii lan la nii ah Cheikh Fassi demal Sénélec nga wax ak ñoom man yëf yi daf may bëgg ëpp doole bu ma ci duggee day daal di ëpp ay ñu dem xoole <laughs> libération Libération Nena, enlèvement de bébé Aïcha. Euh, je voulais euh, combler un vide les aveux de la ravissante euh, Sira Dramé. Sira Dramé ko rek comme xalé bi wérul ñu nous journal le vrai journal nena. crise politique au Sénégal la France s'en mêle France moñu mom. Moñu coloniser, Tabatay colonisé continue diriger ay façon ki manière do nga fi am pour camoufler mais ñun moom dañ ñoo moom kon France moom jarul sax ngeen koy wax dañ ci dugal seen loxo bu baax a baax a baax alors offre de formation et de financement euh, le 3FTP 3FPT dope les artisans euh, 3FPT euh, bu ngeen ko euh, déggee ñoom ñoo yore les lu jëm ci formation professionnelle euh, sous tutelle du ministre euh, Dame job bi nga xamante ne plus euh, moom moo yore emploi formation professionnelle donc ñoom ñu ngi def tamit liggéey bu am solo rawatina ci gox bi ñu nekk ndaxte euh, dañuy jàppale jeunes yi ci financement di leen jàppale euh, ci euh, ay bourses d'études di leen jàppale également ci yu bare bare bare bare bare donc ñoom vraiment bu fekkee boole nañ ci artisans yi moom surtout étudiants yi lañ doon gën a kii bu ci boolee artisans yi loolu moom sant yàlla la bu baax a baax a baax a baax donc ñu dem xooli Sud Quotidien le euh, Quotidien, mon mignon, qui procède procès euh, en fragrance ce lundi de ses responsables arrêtés le 17 juin le 17 juin bu ngeen fàttali ko tuuti ginnaaw mooy manifestation boobu nga xamante ne ni euh, moom la waaye askan wi amoon euh, ak euh, yeneen ñi nekk ci opposition bi te ba Sonko xëyee waroon a dem julli ji jumaa ñu daal di koy tere mu waroon a waaj pour war a dem ci manifestation bi dañ leen tere woon dernière minute le préfet daal di joxe kàddoom daal ne leen nañ dem manifester te ci manifestation boobu sax ñetti nit jotoon nañ fa ñàkk seen bakkan ba ñun ñi ngi wax ne daal vraiment bu ñu ne euh, moytu lolou mo gën donc mom tamit bimu mu ñëwaatee tëgg ay bol la jël daal def concert bu am jom bu saf sap daan né c'est sa façon de communiquer euh, waye ba tayit it kenn na ci bakanam euh, kon daal manifestation yi li ci mëna dégg moy ku nekk mën nga manifester à ta façon mais lu ñuy ñaan moy nañuy gëna def attention di jiital l'intérêt de la population avant tout moy lan samal ñu ñi nga xamanteni ne nii doomu réew mi ba kenn bañ ci ñak sa bakan mi ngi ay ci bok dafa mel comme même chose le suñu naataangoo yépp d'aller des traités. Euh, titre la ñu Abdou Bakhoum, euh, pessimiste. Mune Modulo Ama, celui qui l'organisera, ira. Ah, bon, ah, loolu daal laay natt daal